li sëñ bi na woon yoon yonante bi ak i ak ñi toppoon ci ñoom tey rafetal génnut al iman al islam al ihsan al iman al islam al ihsan rek mooy yoonu yonante bi di yoonu saxaabay ànd nag moom di yoonu ña toppoon ci ñoom tey rafetal ku sóobu ci yoon bi rek yaa ngi ànd ak yonante bi ak gaa yu baax yooyu ndax mu ne bi maanaam yàlla daa dénk yonante bi lislaam kon nag ku nekk ci lislaam rek yaa ngi ànd ak yonante bi iblis nag weddi ak mooy ci ay cër ak def te yàlla taxut modi di aw yoonam mok ay gaayam kep ko xam yaangi ci lolu te moy wedde moy ci ay cërëg def te yalla taxut yaangi ci yoonu iblis te yaangi and ak mom ndax ni yonante bi mom lislaam muy ndénkaanam iblis it yoon wa ca dess day denkanam ku ci aw rek yaa ngi ànd ak moom mu ñaan yàlla musal lu ci ànd ak iblis ci yoonam mu ne lii nag na ngeen ko xam bu baax te jàpp ko tey seet ba xam fu ngeen nekk bu leen wóoree ne yéen a ngi ci al iman al islam al ihsan na ngeen doolee sant te jéem caa doolee sax bu ngeen gisee seen bopp ne nekku leen ca dal leen di tuub tuub gu sell dellu ci yoon wa sax leen ci def lu baax ndax lu baax mooy yoonu yàlla di yoon yonante bi dee leen moytu lépp luy xeetu ñaawteef muy wu fés muy wu làqu ndax loolu yoonu iblisa